ma nee na yàlla na la yàlla dóob ba mu ñetti yoon moo tax boroom xam-xam yépp bokk nañ d'accord ci ne ngóor jigéen bokk na ci grande péché yi nga xam ne yàlla du ko jéggale yàllaa ngi wax ci alquran ne atatuuna dukraana min alaalamin ndax dangeen fi bàyyi góor ñi dangeen fi bàyyi jigéen ñi di dem ci góor ñi bàyyi fi li leen yàlla dagganal ci seeni soxna yéen daal yéen a jéggi dayoo yonent bi sallallahu nee na ñeent a ngi ni ñoo xam ne bu ñu xëyee ñu ngi ci merum yàlla la ñuy xëy suñu gontoo itam ci sanju yàlla la ñuy xëy ñu laaj ko ko nag kan mu ne jigéen ñi nga xam ne dañuy niir góor ñi nga xam ne dañuy niiru niiru lu ay jigéen ak jigéen ñi nga xam ne dañuy niru niru lu ay góor ak koo xam ne dafay tëdde bàyyi ma ak koo xam ne dafay tëdde góor ne moom mooy luutu yu rek wax itam ne waaw mu ne boo demee ci kaso bi waaw dangay fekk góor ñi góor ñi di sëyanti bu fekkente ne góor dafa tëdde moom arsu yàlla ga dafay dafay yëngutu ndax ragal meroom maanaa dafa am benn bés ne papaam di timis jot ñu ne ko timis jot ñu ne ko papa timis jot na mu ne yéen sob li ma wax moo gën a fort timis ndax iblis dafa ñëw yàqal kuy jaamu yàlla kiy jaamu yàlla bàyyi ko fi kay nelaw mu di ko upp ñu ne ko waaw kii nelaw nga koy upp nag mu ne kii li buy dee dafay dem safara kii nag fóore la bu yeewoo dana defar julli gi kon bu leen ko fontoo ba nekk farata ñu julli nee na nee na bu ko defee nee na bu fekkente ne góor dafa tëdd moroomu góoram arshu rahmaan ga dafay yëngatu ndax ragal sànju yàlla ak meram bu ko defee asamaan yi dafay bëgg a fàq di bëgg a daanu ci kaw suuf malaaka yi ñooy téye ca cat ya bu ko defee jàng qul huwa allahu ahad ba wa jeex ndax meru yàlla ma mën a dal jële nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu ne juróom-ñaara ngi nii ñoo xam ne yàlla daf leen di rëbb te bu yowmal qiyaama itam du leen xool daf daan daf daan leen safaraa ngi noonu dugg leen ànd ak ñuy dugg te moo di koo xam ne dangay tëdd sa moroom bu góor kii def ak ki ñu koy def te li wat góor jigen ak ko xamne da fay jël baye may di len sëy ak ko xamne da fay bolé dom ak ndeyje denc len soxna ak ko xamne ki da fay foye sakaram ba banex di ca bayiko li ñuy tudde masturbation lu nga xamne dañu tu di tuube nak yàlla man na leena jéggal jële nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu mu ne góor jigéen bu fekkente ne dee te tuubul suñu ko suulee ci bir bambelam dañ koy soppi muy mbam xoux yàlla nañ ci yàlla boole musal ba noppi wëlbati ko jëme ko sow imaamul xaafis nee na am na benn am na man nii ci saxaaba yi ñoo xam ne lakkoon nañ ñoo xam ne dañ doon def yëfi góor jigéen muy sayduna abou bakar ibn siddiq radiallahu an ak sayduna ali ibn abi talibin radiallahu an abdullah ibn zubair ak hicham abdul malik jële nañ ci abi hurayra radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett ngi nii ñoo xam ne seen baatu laa ilaha illallah yàlla du ko nangu képp koo xam ne da ngay tëdde sa moroom yow mii war ca kawam ak kawam ak jigéen joo xam ne dafay tëdde moroomu jigéenam ko nekk ca kaw ak ca suuf ak kilifa goo xam ne dafa jeng ñett a ngi nii ñoo xam ne seen baatu laa ilaha illallah yàlla nee na yonent bi nee na yàlla du ko nangu kon ayat yi nga xamne moy mooy ne góor jigéen dafa haram dañ ko sip lu bon la neena bari na la ngi wax ne wa luutan id qaala li qawmik yéen lut mi ngi don wax ak aw nitam ne len ñaawteef bi gëna bon ci aduna nga xamne ne yéen ko fi njëkk sos ci jamono yooyu la am moy ngor jigen yéen ko fi njëkk indi bi ci tagu itam lut yàlla ne mayon nako xam-xamu hikma ak xam-xam musulon nako itam ci dëkk ba nga xamne ne dëkke dañ fa daan ñe bañe bañe dencen bañ leen dem di tëddante ci yàlla nee na ñooña ay nit ñu woon ay kàccoor lañu woon ñu génnoon topp lañu waxaat ci alquran ne da ngeen fii bàyyi da ngeen di dem di tëdde góor ñi di fi bàyyi li ma leen bindal man seen boroom ci ay soxna yéen yéen a fekk lu leen sharia daganalal ngeen bàyyi ko fi dem ca la nga xam ne sharia daf leen koo xaraamal te mooy bal antum qawmun aadun sëriñ bi nee na ngóor jigéen bokk na ci ni ko yonent bi jàngalee sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci li muy wàññi dafay indi avertissement la jamono bu xewee ci réew wala ci am pénc wala ci àdduna na la wóor ne avertissement la ci ne yàllaa ngi fas yéene indi ay tiitaange moo xam ci ndox la moo xam ci lakk la moo xam inondation la moo xam bekkoor la ak lu mën a doon la béy ko sëriñ bi nee na li xew ci réew mi yëpp mbënd yéeg yëpp lii rek moo ko waral nee na mi ngi koy gin ci yàlla nee na itam dafay tas yaakaar nee na itam dafay wane jikko ju suufe ak mbon ak ak ñàkk jom ngóor jigéen loolu lay waral nee na itam dana waral ay feebar daf ne dafay dana indi itam ay feebar yu bon yoo xam ne bii docteur du ci mën dara ana sida mooy indi sida dafay joxe sida nee na itam dafay tax yërmande yàlla jóg fi merum yàlla wàcc ci sunu kaw dafay tax itam fu ñu toll yàlla bi ñu rëbb di ñu solul yërmandeem ak itam duma yoo xam ne du wàcc mukk ci koy def ak kañ koy def ba ca tegu itam ña koy def te itam képp koo xam ne yaa ngi nekk góor jigéen yow mi koy def ak kala koy def seen baatu laa ilaha illallah yàlla du ko nangu te itam tegtal la ci ñàkk kersa ak jëf loo xam ne bi yàlla daf ko tere تيتم كنغا خم ندف كوي دف اللائط نين دن كو ورد دوما نين دوما كوي ديالا سلين بي نينا ين بقوي داجي بوملني دوكو باي رك مو موختان بقوي تي خيطو فيبر خم ني اي فيبر سوسيال تيتم بنيو جوغل تي فاكو تي انام بيغن مات رفت بانكو فجا دولي عندك سجس اك اتم وارات برفت نينا لموي باي لكي مجو من نا نيك لو خم سنت nee na mooy affaire ngóor jigéen bi mu waxoon léegi sëriñ bi nee na kon mi ngi baddoo posté bii pour fàttali leen juróomi ndénkaane yi nga xam ne bàyyam cheikhul xalifa radiallahu an daana ko yóbbale muqaddam yi ak talube yi ci ziyaara ak daje yi nga xam ne daana ko fekke mu ne maana bisu alxames la Souleymane Ndaw bu cakalaar moo ziyaar si nee na papaam woo ko ne ko demal nga waxtaan ak ñoom waaye aha sama juróom ñi kat lu waxtaan wi gàtt gàtt bu mu